jàkkaarloo bu métti ci diggante ay taalibe Serigne Saliou Thioune xalif de Thiantakoune ak soxna Aïda Diallo nekkoon soxna ci Cheikh Béthio Thioune fii ci Jannatul Maxwa ñu gis na nag ginnaaw bi fi Cheikh bi jugee ak léegi ñaari kan yooyu le duñu laale ba sax si cong yooyu amoon si ñaari diggante yooyu daal dinay jur ay blessé ak ñenn si taalibe Serigne Saliou Thioune yuñ ci teg loxo jamono jii baña nga ca commissariat bu Jannatul Maxwa buñ sukkandikoo nag ci ëttu yëglekaay bii di Seneweb xamal nañu ne ñooñu ñu jàppoon bàyyi nañ leen démb si guddi waaye dañoo delluwaat ca commissariat ba ndax waa kër soxna Aïda Diallo dañoo bind plainte daal di joxe tamit certificat médical ba looloo waral yëf yi daal di mujjee ci yoon ba tax rek ñuy xaar njiit yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bu sell bii di Touba xam yan dogal la ñuy jël si diggante ñaari camp yooyu le rawatina kilifa yi nga xamante ni ñu ci dëkk bu sell bii yan dogal nag la ñuy jël ak yan ndigal la ñuy jox ñaan yooyu nga xamante ni moo di Serigne Saliou Thioune ak kii di soxna Aïda Diallo ndax bi fi seex bu jógee ba léegi dafa mel mel ne ay xuloo rek moo moo daal di am ci diggante seen ñaari taalibe yi